Salam beaucoup internet yu Hann TV am mbégte di dans dalal stade municipal de Anne nous gën ko le terrain mobile ànd seeg suñu ñaari gan yu le président de la zone 7A muy maman, ak le président de la zone 7C muy Thiatia Meng tey ñu bëgg waxtaanee bëgg pencoo tolluwaayu football yara, mais particulièrement le mouvement de du Nous nous dañuy le président nous mu nuyoo ak beaucoup internet yu en TV

ci fan yi ni ngeen ci ñaanal yalla réussite totale je pense que ni bu ngeen ci réussir rek football Yaraax mo réussir waye ci occasion bi ñu am ni profito ci tay président ta mbokk internet de sitaan bu ñu bëggoon xam ta son expérience ci mouvement nawetaan. waaw euh, son expérience ci mouvement nawetaan yàgg na yàggul fii au niveau de Hann maa ngi commencé bi suma ASCHL Maris ñu ko créé ça date de 2004 je pense 2004 ak léegi mën na sori si ñu yàggul si nawetaan mën na sori aussi ñi nga xam ne mm. yàgg nañ si daal mais bien avant 2004 euh, des fois les vacances j'étais à Thiès ci suma ASC wu koñ muy tukki euh, tu connais bien muy mbaaxaan bu alhamdulilah donc euh, depuis enfance dama mos a bëgg mouvement nawetaan bi may dëkk HLM aussi maa ngi doon militer ak ASC lëm gi nekk naa fa une année mascotte donc par la nuit dama cette euh, daw match autant de Diop c'était les nuits que nawetaan la donc pour la pour revenir fini, 2004 le HLM formé man vers les années 2009 l'année que vraiment délégué officiel 2009 euh, 2010 bon ak euh, ku mel Maloum Abdou Karim voilà. dégg une expérience bi président Momar ñu aussi nga def ni

Nous sommes ngi euh, président de la commission des sports Nous sommes euh, le président de la zone expérience mouvement je pense qu'il y occasion une occasion pour que internet puisse expérience par rapport au mouvement mais le président de je suis ci train de koy en tant que président vous bureau bureau sortant tay lan mo motiver ce candidat. waaw euh, amul euh, rien de particulier lo dama c'est-à-dire euh, je pense que tout membre du comité directeur d'une ASC d'abord war aspirer à être délégué représenter sa ASC au niveau de la zone. Si hum. tout membre du comité directeur de la zone boxe délégué war nga aspirer un euh, poste de responsabilité si vous représentez bien représenter ce si ça ASC d'abord représenter la zone donc euh, man euh, délégué suis un trésorier pendant les quatre dernières années voilà donc cette année nous pour mandat hier comme nous le savons moi, am un euh, candidat moo dessiné woon euh, le grand doyen d'aller, donc koy nuyu de passage ak euh, Abdoulaye Sen, notre président sortant nous avons ñoo dessiné comme candidat au début man ma en troisième position j'ai déclaré suma candidat. mais pourquoi pas moi aussi si laa ñëw waxtaan ak nous eu le conseil de de part et d'autre euh, plus précisément par la suite euh, man ak Abdoulaye Sen président sortant mu ñëw euh, aussi jàppale ma par son expérience bu en tant que président donc mais amul dara loo xam ni dama naan lii exactement mon motivé jeune le rek bu nekk ci quartier après ñëw ci zone bi gis poste bo xam dafa ouvert à tout le monde mm-hmm. Mais bon j'ai saisi ma chance quoi. nga dund ben expérience ci mouvement navétane bokk ci ben bureau pendant deux ans trois ans tey nga ñëw taxaw.

Euh, du du du du du ma figé aussi exactement ni lii lu palpable lii nii moo tax ma nek candidat non non non amul franchement c'est venu naturellement c'est-à-dire dama gis ni maa ngi woon si benn bureau sortant man ak sumay naataango am ñeneen ñu taxaw tamit des délégués dignes ñom tamit ne bëgg dañ bëgg nek euh, quelqu'un d'entre eux ne dafa bëgg nek président suma côté ñima ma ma concerté wu ak ñom aussi au début ñu nek deux candidats muy man ak Abdoulaye Sen par la suite Abdoulaye ñëw ne daf may daf may

muy tamit le mouvement bi nga xamante ne bokk na ci mouvement yi gën a organisé wu ci réew mi organ mouvement yi nga xamante ne ñoo gën a représentatif ci réew mi parce que boo demee ci quartier bu ne am na ASC ASC bi ça regroupe ñëpp ñu nekk ci quartier bi ñu bokk diine ñu bokkul diine ñu bokk gëm-gëm politique ñu ainsi de suite ainsi de suite ñu bokk waaso ñu bokkul waaso ñëpp dañuy regrouper autour de de de l'ASC donc ASC mën na am lu mu surtout la jeunesse du dem football rek ñëw mais dafa wara am yenen yi nga xamantene ne war war ko mën parce que ni ma ko waxe bo xolé statut mouvement nawetaan bi. statut ci leen ci leen li ko mën a jariñ ana lan lu yees la mo war indi par rapport ak lu fi nekkoon. am nañu ay projets sur le plan socio-économique sur le plan socio-éducatif yi nga xamantene da fay accompagner suñu ay compétitions sans compter rénovation yi ñu bëgg indi ci mouvement bi ci compétition les activités sportives activités culturelles nga mom moy am d'habitude ci ci mouvement bi. dafa déwul ci zone bi. déwul parce que mu ngi parce que dañu dañu zone di travailler ba dafa mu ngi don mu ngi mu ngi don mu mais champ quoi des indi apporter donc ñun ci sens initiative

mën a am njëriñ njëriñu euh, mouvement nawetaan. jë njëriñu mouvement nawetaan d' accord dégg naa la foofu loolu tamit daañu ci ñëwaat am na pàcc yu bëri yoo xam ne daañu fi ñëwaat Tchacha encore une fois président zone comment ça s' est passé élection yi campagne bii ba ci élection yi. waaw campagne bi euh, comme comme yeneen campagne yi daan am ah, comme campagne présidentielle da nga dem seeti yi nga xam ne ASC e yi nga xam ne am nga yaakaar suñu jàppale la commencé ko

ak li fi nekkoon autant lepp ñun lañuy jël xol li ci baax lepp ñu indi suñu tuus tam. maa nga dama nek président ASC. nga cherche ma pour convaincre ma ma sa candidature lan ngay teg suma loxo lan nga teg si loxo gars yi. may teg sa loxo du du promesse encore une fois man suma li gëna tax suma suma suma je pense suma candidature daal mooy y avait pas de promesse électorale comme ni nga gars def defee ñëw ma la ay yow lay nek président après nak biñ demee bu ci biir ba nga am quelques ASC man chance la am quoi je veux dire yalla mo fi tek loxom

ndombal tànk ñu leen fal c'est pas donné à n'importe qui hein président zone là ku xam football Yaraax fu mu toll actuellement situation yi fu mu toll nga bëgg nekk un président zone ñëw ci ay nit mais am nga li ngay teg seen loxo mais nga lan moo la motiver lan la motivation bi lan la diinu. motivation ak loo teg seen loxo c' différent. ça à dire li ma motiver. waaw mooy sportif bi moo jóg. loo teg si loxo sportif bi moo jóg loo teg si loxo. loo teg si pour ñu ànd ak yow. mais dañ ma xam dañ xam dañ xam ki candidat bi ñëw dañ ma xam si vécu dama àndaata àndoon ak ñom di liggéey andon ak ñom si ngor andon ak ñom si si deggu ñu gis près ay qualité yo xamni ni mën nañ ànd ak man liggéey bima ñëwé ñëwee pro euh, proposé leen sama candidature vite fait amu ah, jall jàll. loolu boo ko gars quoi Tchatcha la parce que la. mën na nekk parce que j'ai pas fait de mal. ni quoi lu toll ci football. lu toll ni nii. lu toll ci football. waaw lu toll ci mouvement nawetaan. waaw on parle de Tchatcha la parce que Tchatcha la moo dëkk mari sama ngi ni ki la ki non c'est pas euh, de de dëkkuwaay bi amul amul li ma teg ci loxo gaay mo mooy li ma dund ak ñom xam nga dama dund ak ñoom aussi. dund ak ñoom ci dund ak ñoom si ànd ak ñoom si si si bi bi ma nekkee si mouvement nawetaan bi ba léegi xam nga 2004 ak léegi yàgg na. Mhm. ñu gis la nga nekk coach ñu gis la benn instant sax joué naa benn deux derniers matchs sama ASC benn année joué contre je pense jàppoo ak xaw ma sant yàlla fàtte naa ak kër gi donc ma ñëw ñu gis ma en tant que coach gis nañ suma expérience gis nañ lu ma mën a indi si mouvement nawetaan bi aussi ma waxtaan seeg ñoom ñu déggoo si ak man.

Présentement, comment ça s'est passé par rapport à sa campagne bi. waaw ma campagne bon comme nous avons une ambition yi ñu am loolu la touche rendre le mouvement plus attractif C'est ce que nous suñu suñu c'est une orientation stratégique rendre le mouvement plus attractif c'est une orientation stratégique ça veut tout dire lépp dafay dugg ci biir maanaam fexe ba mouvement bi xam nga yaraax ñun ñu dëkk

dëkku football là, dañ fi doon gis lu ne am talent yu ne mais dañu gis ne jamono bi ñu bi ñu génn moment yi ñu génn dafa xaw niveau bi dafa xaw baissé loolu nag li def bari na amna amna amna amna am na am na cause yu bari mais tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo am expérience boobu daan ko def dañu dem ba dañu dañu nekk à l'écart du mouvement naka nous def ba population bi épouser waat le le mouvement jege si waat euh, mouvement nawetaan bokk si waat ci nawetaan bi à travers d'autres activités sax nous nga xam dina leen intéressé comprendre nga demaat gisaat ancien du ancien du mouvement waxtan ak ñom bolé len ci té dañu am chance tamit am de grands de grands dirigeants yi nga xamante ne dañu marqué le mouvement nawétan buñ la wax né ñu nga xamanté ñi bind texte nawétan yi ñu ci bari fi lañu joggé déroulement bi campagne bi ba dem ci élection yi. par rapport ak Momar lan la convaincre gars c'est ça manam naka la ñuy def ba rendre le mouvement plus attractif comment à travers des projets yaa ngi dégg à travers une, une, une, une rénovation dans l'organisation. Par rapport aux deux camps Aux deux camps, c'est-à-dire Par rapport à cette élection, déroulement, nous demain, tchao, lifi, amat, kambi, wala kambi, des trucs, comme ça Comment ça s'est passé ah Non, moi, je trouve que, bon, on a, on a fait une campagne. Watan nañu nit ñi, campagne, waxtan nañu ñom, wax leen suñu ay projet, wax leen suñu ay ambition, bëgg une rénovation dans le mouvement. comment ñu ñu wara séti ñep il y a eu deux, deux camps et puis ñi fa choisi le camp bi nga nek. Man j'ai eu la chance de gagner mais n'empêche je dis que c'était une parenthèse Diallo, l'essentiel de rassembler tout le monde et puis nous travaille on dit que Momar àndoon nak ben camp ay morom jeune Ñu ci même génération di fasandoo di ci ben programme ci programme Ben instant on a gis ñu gis fait instant affaire bi cassé. Mo ben cassure bu am ci groupe bobu nous mu créé ay ñaari camp ñu camp bi wala bi nga président comment ça s'est passé voilà xam nga xam nga cassure amul Kassir amul bon xam nga. Kassir amul nga jaar nañ gars yi jaar nañ. non damay xam nga ñun man je suis j'ai été le président de la commission des sports comment nga ñi nekkon ci ci man dañu def assemblée générale ba nopi ci mandat bu ñu mais man ak ma s'il vous plaît ma gëna a yaatal ah. <laughs> dañu def assemblée générale ba li passé ma nekk le président de la commission des sports ñu lancé un défi c'était le grand Lamine Diallo le doyen Lamine Diallo moo lancé un défi ne ma commission sport yi fi nekkoon daawul nekk commission benn nit lay doon fexeel ba mu nekk commission parce que commission moo doole. mouvement nawetaan dañ daan am zone yu fi nekk ku jël responsabilité daawul liggéey man j'ai créé une grande commission te loolu ñëpp ñu nekk ci dans le mouvement sama collègue yi mën nañ ko mën nañ ko mën nañ ko def c'est j'ai créé une très grande commission jeunesse bi nga xam dañ doon nekk ci biir j'ai essayé de créer un espace d'expression pour eux ñu nekk ci di liggéey ensemble comprendre nga ñëpp ñu si bëri ñu si bëri parce que ay novice lañu won man ma leen jëk jox ñenn ñu déléguer match xamal leen nak la travailler ainsi de suite. ak sa gaay bon dañu waaj élection élection bu ñëw non lay démé parce que kenn ku si ne dafa ñaari ñaari candidat dafa dessiné wu ci sama ci biir groupe bi ngay wax ñaari candidat man dama dama dama am ambition nek candidat am keneen ku nga xam dafa nek dafa am ambition nek candidat comprendre nga ñen yi ils ont choisi de s'allier ci ci camp boobu ñeneen ñi ils m'ont suivi et ñu def campagne ñu jàll am chance su jàll. lu ci xew yëpp si campagne bi. lu ci xew mooy campagne <laughs> c'est très normal campagne am ju ci xew loolu <laughs> loolu campagne la quoi. Omar yéen ngeen nekk ay gars yi teel ñu suñu football bi di nekk di liggéey boobu ba léegi pourquoi pas consensus. waaw consensus on a jëm nañu ko tenter les doyens de de la zone damay jaar ci damay profiter de l'occasion bi remercier les les les doyens de la zone nga xam ne ñooñu mag ñoom président Leyti ñoom mam Ousmane Cissé ñoom ak ainsi de suite su ma limee euh, mën naa juum quoi ñoom jëm nañu def leur maximum pour que consensus am mais trouvé wuñu ñu terrain d'entente loolu tamit waxtaan doone nit ki forcément lii lii laa bëgg nga fekk ma ci far. mais mais yéen mais ak yéen fi ñu leen di xaaree ak yaakaar bi football bi am ci yéen par rapport ak impact bi mouvement nawetaan war a def ci football yaraax on a vu que ni dara doxut quoi ce qu'on se dise on ose le dire que ni fu nek mi ngi metti fu nek mi ngi dëgër yeen ngeen nek ay jeune di and ci liguey ba wax nga si bir liguey bo gis ngeen ni liguey bi mi ngi dox te ngeen taxaw consensus sax waxtaan ba juboo sax mën leen ko am pour l'intérêt dëkk bi xanaa dafa am lu motiver derrière ci lolu ñi nan politique la ñi nan li ñi nan lii la nan la ma ngi ñew sa waji ah? non nous nous sommes dans un dans un mouvement associatif te mouvement associatif c'est un mouvement apolitique donc man gëw ma ay euh, clivage politique yi gars yi di wax. gëw ma clivage politique bi. non mais mais candidat monsieur le maire. may Mais may s'il vous plaît. xaaral ma ñëw ci <laughs> yow. candidat Moussa le maire. c'est-à-dire looy tontu si gars yi. ñi wax ni. candidat monsieur le maire. pourtant man damay dégg le contraire ah. lan ngay dégg le contraire. que monsieur le man am na ñu ànd ak man sax loolu lañ jàpp. est ce que du ngeen bàyyi sax la mhm. mhm. rek motivation bi mi ngi xam nga tey. Euh, parce maa lay laaj lan moo la motivé waxuloo ma ko. xamuñu ne xamuñu ko benn man sànq bële maa lay laaj lan moo la motivé waxoo ma ko lan nga teg ci loxo gars ba léegi waxuloo ma ko

gis man man man man iwu yo mange pas su ma su li ma bëgg a wax ak li ma wax man mën na ko wax parce que du du si li ma nekk nii laa yaakaare lu ma suma kër la la yore suma njabot yow on se connaît man ak yow depuis CM2 écoute-moi écoute-moi écoute-moi gars yi wax candidat maire nga bobu lañ wax écoute-moi moom la lay expliquer mom la lay expliquer mom la lay expliquer ne la mère suma xarit la et eh, dama koy wax fuma ma toxaw dama koy wax

l'heure est grave Hein. voilà. l'heure est grave. non situation football y fu mu toll. du ngeen jël politique teg fële def la part des choses indi suñu football teg fii parce que moom ci biir waxam dégg nga li mu wax nee na bu ko maire jàppale woon dina gën yomb. waaw xamul tax may ma ma may ma ma war ma éclaircir loolu bala ma yow xamul tax ma wax loolu non xamul tax non attends iw iw mënoo mënoo attends doucement bu yóbbu sama wax mu eggul nag dama leen ni dama leen ni dama leen ni y a deux choses yow yaa ni ma su la maire jàppale woon waaw da xamul tax mu yomb xamul tax mu yomb wax nañ la maire bi nga doon jàppale ñeneen sax kon politique bi feeñ na carrément ci fool bi déedéet déedéet je suis désolé feeñ si xamul tax feeñ si maire bu ma nee bu ma nee ba ma éclaircir li ma wax bala ngaa jàll dama leen ni maire su ma la jàppale woon mu gën a yomb je je le redis a a gën a yomb. maire tey su ñëwoon day dugal loxoom ci mouvement nawetaan tey est-ce que non non président moo yóbbu fële. non ah, a affaire dafa dafa rax politique. non ñu koy wax. ñëpp wax ko. chacun est libre tey nga toog day gën yomb ci yow. je ne sais pas parce que euh, parce que dugg hein, de près de loin. attends attends voilà ah, ah. Gisumoko de près de loin mais un maire quand même il accompagne le mouvement attends si c'est un maire qui xam dafa dindi politique bi mouvement influencer peut-être un délégué peut-être peut-être.

président jaxasoo de. football bi bu ci impliqué euh, comment dire bu ci politique impliqué ba jël ci doole bi toll est-ce que lo may problème football Yaraax. bon lolu question la bu ñuy wax bu ñuy wax football Yaraax en général question la mais bu fekk dañuy revenir ci mouvement nawetaan ak suñu campagne bi man personnellement awuma ben gisuma ben ben acteur politique bu influer ci sama campagne man personnellement parce que jëm leen sax impliqué parce que problème interne. non yow grand yi nga. booy grand booy grand yi nga. booy booy grand yan. booy grand beneen clan bi grand yi. waaw grand grand nawetaan. non dañ ñu oh, booy grand nawetaan dama ni. non booy grand nawetaan waaw ah, grand nawetaan yi waaw. grand nawetaan la. booy grand yi fekk booy yi ay am seen biir ñu sepp ci benn booy def ko seen booy def ko seen arme. non loolu amul. non dañ ne Mamar dañ la fekk ak say xarit ngeen lal seen plan di nekk seen benn liggéey ñu la sepp sa biir morom def la seen arme ak ñooñu te pourtant yaa ak ñooñu yéen a bokk même génération am benn vision ne football yàlla dafa doxul Nous ànd ñun en jeunes Non, non le président de la commission des sports cadre candidat déclaré c'est la des parce que kenn qui j'ai pris des responsabilités Partager ko délégué responsabilité ak ils se sont exprimés Mais de grands dirigeants durant quatre ans donc bu fekkee ne am na ku ci bëgg candidature la moindre des choses mooy ñu waxtaanee ko ba noppi man it dama leen waxoon ne balaa ma ci balaa ma jël initiative dama ci waxtaan ak yéen ba pare mais dama jékki-jékki ñu ne ma am na benn candidature si biir groupe bi te waxul ak man jékki-jékki def candidature ba ñu ngi commencé di waxtaan am ay wax yu jóge ñu man on m'a taxé de grand booyu booyu grand yi te boobu dafa guma benn acte jëlaguma benn décision nit ki nag da ngay am full lay, jël sa responsabilité bis jël sama responsabilité jotté jël na sama responsabilité amna ñu nga xamné duñu jog pour peut-être dégager grand yi man damay dox ci respect grand gis nga institution bu mu mën doon boko bëggé jël da ngay respecté ña fa nekkoon da nga leen di jox gëdd tay sama quartier bu ma né doomu yarax la bu ma gisé grand yarax joxuma ko respect respecté wu ma yarax comprendre nga ça ne veut pas dire que grand yi dañu ma copté man ma dem vers eux

ñoom dina am fu nga dañ may topp am na fu nga xamante dinañ ma conseil ma topp leen mais loolu la. non xam nga xam nga xam nga fan lay fan lay problème bi di amee duñu nga ko léegi est-ce que du nekk en otage boobu noonu xaar ma ñëw rek yow Momar on se connaît en tant que ay jeunes ci sport bi xam nga ni kàmbale na la tey bu ñu waxoon tànnal di nga fa tànn juróom personne ñëw ci yow liggéey ak yow kàmbale na la ci compétence di nga si tànn juróom personne ñëw ci yow. non du juróom rek. est-ce que du problème pour football fi xam nga est-ce que obligation wu euh, candidature obligation vote bi du tax nga jël ko xam ne mérité xam nga campagne dafa am réalité campagne dafa am réalité ki nga na pour faral la ñi nga ñu faral la boy choisir sa camp ci ñom ngay choisir. même bu ñu compétence. non defal mais même bu ñu amul compétence. mais mais mais délégué délégué bu mu mën doon quartier na mu toll ASC délégué quartier na mu toll yëpp ñu choisir fa trois personnes nga ne trois nga osé wax na ñooñu amuñu compétence. non dama déet man waxuma dama la laaj yow. même bu ñu amul compétence yow. ci li nga leen dénk yow. ñàkk compétence ku ñàkk compétence sa quartier ni mu toll ak lépp peuple quartier ba ñu tànn la ci biir. ña nga fële ci kaa bay toog. non dafa ndànk wax la dafa ndànk man ñi nekk ci nga xamante ne ñoom laa jël. waaw balaa ñu nekk délégué ci zone bi. sen quartier ñoo leen choisir am ci ñom yaakar ba indi leen ñoon ñooñu tanef lañu ñu joge ci base bi doga ñew kon amna na am san ver san san pas digga tay ben iboulay boko boo zone rax euh, kasanka tàntu ko ci ponson mu ñew ci mu ñew ci zone bi boko joxé finance lor nga ko parce que ibulaay xamul lool quand on dit compétence moy ku ci nek place bi nga koy jox est ce que du poser problème par rapport ak moom profil bi non non non bo gisee homme de culture nga jox ko finance gis que la jox ko tres gis que la jox ko par lan la parce que problème bi ngeen am mooy problème lan problème personne ngeen am parce que benn camp bi ñu nga taxaw fële seen taxaw seen camp mais ñoom du ñu mais mais mais Iboulay Iboulay il faut nga accepter loolu mooy la réalité. la ré non non non non dafa ndàkk dafa ndàkk la réalité la lay wax lan mooy la réalité. mooy ñi nga àndal sa camp ci ngay choisir ñi ngay man bu ma sañoon peut-être am na ci kële am na ci beneen camp bi ku am compétence bu nga xamante bu ma sañoon mu liggéey ma liggéey ak moom mais malheureusement pour lui démarché naa ko bañ naa loolu bañ loolu mooy mo waxtan yéen bok febar de. maa ngi ñëw maa ngi ñëw président. yéen bok febar de. gis nga Ibrahima. Ah, dañu may ñu daaneel aussi ibrahim dañu may ñu daaneel. non non non li nga expliqué la mais yéen yéen a bokk feebar. Euh, nawetaan autrement boobu non il faut ñun surtout les jeunes. parce que histoire nawetaanu Yara commune de anbeler bel mu lepp yow yaa ngi ñu ngi siy waxtaan sànq euh, avant caméra di tak il faut il faut ñu nangu faire promouvoir la jeunesse je pense durant nga nekk fi en activité mosugoo fekke fu pré des des jeunes présidents de zone. c'est la mm-hmm. première fois. Mm-hmm. à son âge à mon âge. Mm-hmm. ñooñu ngay wax ñu nekk suñu kan cest à dire du ñu figé wu que Iboulaye moo mën poste bi ben ben benn bon sama xarit bi ma gën ben, ben, benn benn Ablaye Mbaye euh, mënu ko ko du ko jël déedéet gis nga dañ toll foo xam ne apprentissage dafa am sax. Hmm. ba ci la. ba si bu euh, euh, c'est pas question nag kii day mën finance mais gis nga ñi nekk les délégués là yi ñuy man su man man c'est valable sax mën naa waxee sax côté moom. Hmm. gis nga gis nga man ñi àndaloon ak man di campagne ak man ñu war a def un bureau dafa am lu élection demee c'est-à-dire mën ngay campagne benn nit boo xam ne mën na commission sport min na ko nga dem campagne ko pour mu ñëw téel la ko ça veut pas dire moom kese ko fa téye parce que dafa amoon commission la la wax commission boobu y avait des.

quelqu'un qui peut te gérer la commission sport. Pour mm. eux, c'est c'est pas le mouvement qui a mal, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Voilà. Revenons à la réalité. Ce qui est important, c'est que les gens qui ont n'atango en non. de se faire, nous ont fait pour l'entrée de football Yarak. C'est important, harmonieux. Pour l'entrée de football Yarak, faire les gens qui ont été en bir. Nous rejoindre, nous dem. Parce que Yarak a besoin de ça. Le mouvement a un impact, il doit y avoir un impact sur ce football-là.

gis nga lu bi fu mu ñëw si non lëb yow yaa nga non a ma soo ma voté naa la jox poste bii xam nga ni moom mënu tu ne maîtrises pas notre sujet. non dama seen sujet yéen non dama ni non dama ni ñun ñëpp ñu ngi ci milieu bi on connaît ce qu'on parle léegi par rapport ak sa poste président bi ñu jox la benn poste président la nga fekk ci zone bi yan anam nga fekkee zone bi. Hann askan bi Hann askan bi.